asalaamaaleykum waa Mouhalim Sport TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi waaye laata loolee kiy gën ci paas bi te abonné goo dañu lay ñaan nga abonné te bës de notification bi ngir kat bépp vidéo bu ñu dugal yaay doon ki njëkk a jot waaye ngeen di commentaire di aimé loolee tamit dina yokk doole seen bi bu dee benn like bi ngay like rek nga like ko kat loolu kat day ñu doole ci liggéey bi nga xamante ci ne dañu koy def bu dee partage bi kay day tax ñëpp mën di leen di ziare bu baax doona koy doore ci jongomay FC Barcelone yi ñoom nag xam ngeen ne démb dañu doon football waaye it wala barki démb waa Olympique de Lyon ñoom ñoo doon jàkkaarloo ak ñi la ñu doon jàkkaarloo mais nag Barcelone ak waa Olympique de Lyon ñoom nag xam nañu ne ñooy jàkkaarloo kon nag jigéenu FC Barcelone yi mel naa ne ne ñoo dal man ñi nga xamante ne ñoo ñoo di góor yàlla yi kon nag waa jigéenu Barcelone yi ñoom jamono ji daal ñoom li ñu bëgg nag moo di dal di jël

waaye kon loolu nag match yu métti lay doon na ko ñëpp dal di xaar match yooyu nag dinañu gën a xoolaat information yi wax leen kan la ngir ngeen ngeen ko mën a bàyyi xel ndax kan match bu neex lay doon ci Olympique de Lyon ak jigéenu FC Barcelone yi bu ñu sukkandikoo ci taskat xabaar yu bëri ñoo ñuy xamal ne ko kii di Gareth Bale ñoom waa Tottenham ba tey ji bàyyiguñu ko li ñu bëgg nag moo di moom Antonio Conte daal moo déclaré ne Gareth Bale dama ko Pedri Gal moom nag xam ngeen la muy dund foofee ci biir Real de Madrid xaw na métti trop ngir ko temps ba xamul demee noonu mais ñoom waa Tottenham soxla nañu ko te xam nañu ne joueur mag la moom nag waa Real de Madrid xam ngeen doon nañ ko fi kii ñeneen ñi di ko wax loo xam ne dañu ne daal waaye it moom moo leen waxoon ne ku xamul kuy Gareth Bale da koy laaj yeneen club ndax moom équipe bu mu mos dem moom Gareth Bale daal dina koy toj kon nag moom Gareth Bale daal bëgg-bëgg mooy nag moo daal di dem ci équipe boo xamante ne dafay amee ab temps di fa football waaye nag waa Real de danañu xool ba xam ñoom nangu nañ ko bàyyee ak ñi nga xamante ne ñoo di waa

kon ko kee di Karim Moustapha Benzema moom it ma ngay doxal bu baax a baax fu fekkee biir Real de Madrid moom ki nga xamante ci ni moo di Moustapha Benzema moom nag ballon d'or bi sori na ci trop moom doomu France boobee nga xamante ci ni moo di Karim Moustapha Benzema moom nag jël na ay trophée yu bëri fu fekkee biir Real de waaye moom nag la mu waxoon ba tey yéen nee na jógu ca li mu bëgg daal moo di bu ñuy jàkkaarloo ak waa Manchester City dem ci wàllum Ligue des Champions retour match boobu nag match bu rëy lay doon ndax xam ngeen ne Manchester City moo dal di dumu de Madrid ñeenti bal la ko daal moo di bu waa Manchester City ñu dal koy dumu du muy métti ak seen doom boobee di Karim Benzema jiital nañu koy ne ko yaa ne li nga daa def ci championnat bi ak Ligue moom la ñu bëgg bu Ederson ñëwee nga daal di koy toroxal kon nag daal di jàpp waa Manchester City toroxal leen moom naka la leen naa daal bu ñuy jàkkaarloo ak waa Manchester City ñu daal di leen moom ki nga xamante ni moo di Karim Moustapha Benzema moo daal di yëkkati yooyu kaddu moom a sori ñaanco Sadio Mané ci mbir yi ko toppal yeneen xibaar la ci kanam diglul kookee di Ansu Fati moom nag moo nekk coach bi nga xamante ne nii Premier League yëpp dina koy tegale jël ko moom ki nga xamante ne moo di Ansu Fati ndax bu dee championnat Angleterre ba jël na ko ca Chelsea Real de Madrid championnat Liga championnat ba jël na ko ak waa PSG kon nag Ansu Fati moom kenn du moom ngay doxal bu baax a baax foofee ca biir Real de Madrid moom nag bëgg-bëggam nag mooy. mu dal di jël li nga xamante ci ne ci a am naa yaakaar ne Ballon d'Or bi kat bu nu ko ko joxul xamuma liggéey ci Real de Madrid amul benn suir dem ci waa Real de Madrid ñoom nag ñoo nekk championnat Liga ba xam ngeen ne keroog nan la dóor espagnol ñeenti bal lañu ko dóor ba Moustapha Bin Sama sax jot na caa dugal waaye it waa Real Madrid ñoom jël nañu ko trente-cinquième fois ñoom nag eh, bii ñu jël nii ci atum 2022 moo tax ñu daal di koy jël trente-cinquième fois ñoom waa Real de Madrid kon nag ñoom waa Real de Madrid kenn du ñoom waaye it eh, ba ji ñoom seen bëgg-bëgg moo di fàtte nañ liga bi ñoom daal jël nañu ko Yoxoo yi neex na Madrid neexoon na Santiago Bernabéu yi neexoon na mais ñoom jamono ji li seen bëgg-bëgg moo di ñu daal di dem daal di jël Ligue des champions bi ndax Ligue des champions kan mën nañu ne moo gën a rëy li nga xamante ci ne moo di championnat Liga centenaire ba waaye it ñoo ngi koy ànd ak seen ponkal yi yëpp ngeen di loo ko ci ni Karim Moustapha Benzema waaye it ak Alaba kenn Modric si ak Casemiro ak Asensio ak ki nga xamante ci ne moo di Toni Kroos ak Lucas Vázquez waaye it ak Courtois waaye fàttewuñ Vinicius Junior kon daal waa Real de Madrid jamono ji ñooy championnat Liga Santander nag mu mujj de a championnat te moo gën a riche trop waa Real de Madrid dana ñëw ci Ibrahima Fichi moom nag ma ngay football foofee ci biir AC Milan moom na xamoon ngeen dama AC Milan daal ñu génne woon ay kàddu daal di xamle ne moom Ibrahima Fichi bu dee day yokk contrat mën na koo yokk bu dee dafay jóge it mën na koo jëkk ngir ñoom dañu ko respecté kii kee di Ibrahima Fisse nag la mu bëgg nag moo di daal gën a toog ko fee biir AC Milan daal di gën a jëmbat fu la ngir kat mën a wane boppam ngir kat mën a jël li nga xamante ci moo di yeneen trophée ci kanam moom ki nga xamante ci ne moo moom ngir daal koy bàyyi ndax ñoom xamoon ngeen ne génne woon nañ ay kàddu daal ne moom kii di Ibrahima Fisse ka lu ñu bëgg moo di mu dal di roxaste fii ci AC Milan ngir kat gën a jëmbat fulla bu jëmbatee fulla moom kat xam ngeen ne daal di koy ànd ñu bëri waaye ñoom waa AC Milan nag ba tey jii ngi ci du jouer ki nga xamante ci ni moo di yeneen joueurs yu bëri ñoom kay li ñu bëgg moo di gën a tabax seen doole équipe ba ñoom ñi nga xamante ci ñoo di waa ay Milan waaye it nëpp wuñ ci kookee rek ñu ngay wëri ay ngan di maami sier ngir dal di bëgg tabax seen club ba ñoom waa ay Milan bu ñu jógee ci Ibrahima Fix yi dañu ñëw ci kooki di Antonio Conte moom nag mooy tàggat équipe bi nga xamante ni moo di équipe bu Tottenham bi moom mii sax moo soxla woon kooke di Gareth Bale waaye it ba mu yëkkatiwaate ay kàddu jëm ci xam ngeen ne waa PSG dañu ko soxla moom nag waxoon naa leen ne bu ma ñëwee Paris Paris Paris googu noonu dama koy raxas ba mu set wecc ma xool ñi baax ma wàcc leen fi xool ñi nga xamante ci ni baaxuñu ma daal di leen di jëlee ci ci biir PC waaye nag ñoom waa PC daal waxtaan ba ba tey ji daal ña nga ca ngir kat ba xam ne waaye it yooyu xibaar yi danañu leen ngeen ne Antonio Conte moom ful la rek la am moom daal li mu wax waa PC bu dee bëgg ngeen ma tey jaral ngeen ma waa Tottenham li ñu may fay bu ma ñëwee da koy yokk ba mu mat sëkk du manqué benn virgule waaye it bu mu ñëwee ñi nga xamante ci ne ñoo ne ci biir PC gépp xaaj bi dama leen di raxas moo xam ay Neymar ak moo xam yeneen joueurs yi ay directeurs yi ñi nga xamante ci ne ñoo ëmb PC gi ñoom ñëpp dama leen di raxas ba ñu set wecc kon nag waa PC ñoom noppi nañu pour dal wut si course bu bees tàq Mauricio Pochettino jël na championnat waaye ak jigéen fa xaw na béggee ne trop ndax moom Mauricio Pochettino dal di jubali foofa nga xamante ci ni moo di PSG waaye yooyee xibaar moom lu ñu leen di toppalaat ci diggante Antonio Conte ak Mauricio Pochettino bu ñu jógee ci Antonio Conte dañuy dem ci kooku di Memphis Depay doomu Hollande waaye doomu Pays-Bas moom nag ma nga waxal bu baax baax foofu ci FC Barcelone nii Barcelone bi muy mag si jot na dugal bii moom ki nga xamante ci ni moo di Memphis Depay moom nag waxoon na ne Barcelone dafa bëgg maanaam xam ngeen nag temps ba xawoon na jagadu trop ngir kat match bu mu départ gën na am trop bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar yu bëri ñoo Eric Aubameyang mooy daal di doon seen numéro 9 kon nag mën nañu ne Memphis Depay moom mën na am mu jóge foofu ca biir FC Barcelone waaye nag li mu bëgg nag moo di gën a resté gën a fulla ci wàllum football bi ndax moom kat xamoon ngeen waa Barcelone ñu ngi ko jëlee foofee ca biir l'Olympique de Lyon ah, ngir dal di bëgg mu dal di yokk fulla moom ki nga xamante ci ni moo di Memphis Depay waaye yooyu xibaar nag dañu leen ko toppal ba xam moom kii Memphis Depay day yokk contrat am ak waa Barcelone wala dafay dal di jógee moom nag ma ngay doxal bu baax a baax fu fekkee biir FC Barcelone ngir fulla lay jëmbat ca la muy def waaye it waa Barcelone daal dafa mel ni ñoom dañu ko xaw a kii ndax ku mel ni Aubameyang kat fulla am kon nag moom Memphis Depay daal bëgg-bëgg moo di dem ci ab club boo xamante ne dafay am temps de jeu waaye dafa football kon nag kookii de Memphis Depay daal décision yi leer na nañ li mu bëgg daal moo di waa Barcelone benn ñu da ko teg muy football wala it ñu daal koy bàyyi mu jógee fa fete biir FC Barcelone wuteeli beneen club moom nag xam ngeen ne mbokkam wala doomu ndeyam bi nga xamante ne ñoo bokk benn dëkk muy Ronald Koeman moom xam ngeen dafa ca pays de Galles sax léegi moom nag amoon nañ ci moom ay information waaye danañu leen ko beccal ci wolof am na leen suba ak jàmm kon nag man fis de daal xibaar yi mu génne jébbal ko waa FC moo di benn ngeen yokk sama contrat wala yéen ci ni fa de football dañu ñëw ci et moom moom nag doomu Cameroun noonu la mais na xam ngeen ne la mu ñu si fekk biir Olympique de Lyon moom nag xamoon ngeen ne jamono jii yéen a ngi dégg ci moom ay information ñenn ñi ne waa P waa nga xamante ne fa lay ñenn ñi dana ko yuuxu waaye it ñenn ñi bëgg ko mais moom nag waxoon na génn woon na ay kàddu nee na li jëntuwuma ñi nga xamante ne dana ma yuuxu yooyu li ma bëgg daal moo di mu gën a resté gën a wone fu la fii ci Olympique de Lyon ngir kat sama carrière laay lijjanti waaye it ak sama club li muy def mais nag du leneen loo xamante nii gars yi doon na koy def man ma toog di ko xool moom nag kàddu ji mu yëkkati dal dina leer nañ nee na daal lion gi li mu fi indi moo di football waaye it jëma jëma jëmbat fu la ci sama club ngir kat dal wane lu rëy rëy moo tax ma ñëw waaye it képp koo xamante ne la yaa may def neexu la may def kontaan ci loola yaa koy yëg waaye it loolu sama xalam ñebe la moom daal ko kee di toogo ikam bi xam ne moom supporters yi moom noonu la ñu mel boo jëmbatee fu boo jëmbatut fu la dañuy wax ñoom ñi nga xamante ne ñoo di supporteru olympique de Lyon yi bu ñu jógee ci ikam dañuy dem ci je kooki dox euh, minor yàlla moom nag nekkoon ay agent ñu bëri ko ca mel ni ay Verratti wala ay Paul Pogba wala ay Erling de Bruyne Haaland waaye it ñu bëri ñoo xamante ne daal moom mi moo nekkoon seen agent moom nag dafay jóge woon ñoo ngi doon di déggaat ci gannaaw ay information ñenn ñi naan waa ay ay njabootam ñoo génnoon wax ne loola wérul moom gaañuwut mais jamono jii nag officiel na ne kooku di min wara yàlla dal dinay nekk mort maanaam faatu na ñàkku na ba kon nag loola mu nekk tis woo xamante daal dal na ci képp kuy sport ndax moom kat amoon na yëg-yëg ci sport waaye it amoon na baat ci sport ndax xam ngeen ne ku mel ni àdduna bépp dal koy bëgg moom mi mu nekkoon Azam loola nag rëy na trop kon mën nañu ne ñoo booloo dal di ñàkk ki nga xamante ni moo di Mino Raiola moom nag moo nekkoon ay Azam ay Verratti Paul Pogba Erling Haaland waaye di nekkoon sax Azam Ibrahima Fixie moom moomee di Mino bu ñu jógee ci ki nga xamante ci ni moo di Mino Raiola dañuy ñëw ci ballon bi ballon bi nag mën nañu ñaar ñi ci gën sori moo di Karim Moustapha Benzema ak ki nga xamante ci ni moo di Ndiago Sadio Mané ndax bu dee Benzema am na 42 match yi dal di am 42 but kii koy di ah, ba tey ji dal di am 12 passes décisives ak yeneen yu bëree bëri waaye it ay deux titres yi ki nga xamante ci ni moo di Sadio Mané am 45 match yi am 20 but am deux passes décisives mën nañu ne nag bu dee saa bu dee benn sama moo ko ëppale ay bit waaye li ñuy ñaan daal moom te mu yittal ñu moo di ñu ñaanal ko kii di ñaan ju Sadio Mané mu dal jël li nga xamante ci ne moo di ballon d'or bi ndax kan mën nañu ne bii bu rawee dina métti yeneen kap fii mu àgg ci ballon d'or mu dal dafay àggati moom ki nga xamante ci ne moo di ñaanco Sadio Mané waaye it na ñëpp leen di lancé benn ne dañu leen di ne ngeen dal di ñaanal ki nga xamante ci ne moo di ñaanco Sadio Mané amul ko ëppalee lee a ñor yàlla moo koy may kon nag na ñëpp jug ñu ànd doon benn ci commentaire yi ngeen def fi ay cœur waaye def fi kookee di ñaanco Sadio turam ñaanal ko mu dal di li nga xamante ci ne moo di ballon d'or bi bu ñu jugee ci ñaanco Sadio Mané ak ñëw ci Ibrahima Konaté moom nag yéen ngi dégg ci moom ay information ñenn ñi naan dafa bëgg ñoo Sénégal ñenn ñi naan dafa am ay mbokk Sénégal ñenn ñi naan Sadio Mané lay waxtaanee la pour bëgg ñoo Sénégal waaye xibaar yi gën a wér te wóor moom Ibrahima Konaté moom amul baay Sénégal wala yaay wala maam Sénégal moom nag mën na su waasee Sénégal bu ko neexee mais nag yenn xibaar yi moom dañu leen koy gën a toppal ndax amuñu droit di leen jëlal benn information boo xamante ne wérul te it dañoo Mouhalim Sport toll na foo xamante ne duñu fi jëmbat benn information boo xamante ne wérul wala yeneen yoo xamante ne dañu ko fiy teg naan leen ay Ibrahima Konaté ñëw na foofee ci Sénégal wala it moom nag mën nañu ne bu dee day wax ak Aliou Cissé wala ñaancu Sadio Mané mi waxal yeneen suyor yooyu ay information yu leen di gën a lijjanti la

yëkkati benn information boo xamante ne wérul ñu dëkk fi dugal kon nag Ibrahima Konaté danañu leen gën a toppal information jar na ñu dugg fu ne luqati fu ne waaye it dem leen koy mën a jox ci Ibrahima Konaté ba xam moom dafa am ay mbokk Sénégal wala ay baayam ñoo dëkk Sénégal wala doogu leen ko a jox yooyee xibaar kon naka fii la ñu xibaar yi jox leen rendez ba suba ak jàmm ak beneen vidéo incha allah waaye it ñu joxe ne benn nouvelle bu neex ci Ansu Fati tey jii ni Barcelone bi muy football moom ak Dembélé xam ngeen ne ñoo ànd dal di ñëw moom Ansu Fati kon nag tey jii nii ñi ko bëggoon wala it ñi ko ndamoon wala kuy Catalan daal tey gis nga ko kee di Ansu Fati ndax tey jii kat ñëw na ki ko may moo di Ferran Torres moo ko dal di may moom Ansu Fati kon nag ñëwaan na na ko ñëpp ñaanalaat képp kuy Catalan daal man mii ci Catalan yi laa bokk du ma ko nëbb kon daal da koy ñaanal moom Ansu Fati mu gën a am ak wér ngir gën a mën a jëmbat fu la fa fecc biir Barcelone mooy numéro 10 ba nag kon sama gars yi leen di jox dig daje ba suba ak jàmm ak beneen vidéo incha allah fii ci Mouhalim Sport TV waaye nag bu leen fàttee abonné te wéy di like wéy di partager yile vidéo jaa ngeen jëf